di sant bu baax a baax avant ñu dugg ci lactualité bi nga xam ne mooy euh, politique euh, dernièrement dafay am ay accusations yu jub di jëm ci euh, responsable politique yi épargne wu la avant vous on a de Farba avec une somme importante d' argent bu ñu retrouvé woon na chez lui yow it bërki démb ñu gis ku ci mel ne le journaliste Adama Gaye ne dañoo cambriolé sa benn kër bu nekk Somone jël fa xaalis bu am solo toll ci un milliard de francs fa mu doon ay yu graw lan moo ciy dëgg ak moo ci amul ak sénégalais yëpp laa ko découvrir ah mu nekk loo xamante ne euh, choqué na mu bu baax a baax euh, choqué aussi euh, toute ma famille mais surtout exposé donc euh, toute la famille euh, bi nga xamante ne man maa nekk à la tête. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne c'est extrêmement regrettable que nit mën a ñëw toog internet. bind lu la neex diffuser ko ci internet bi nit ñi di ko partager mu nekk loo xam ne euh, véritablement euh, lu exposer nit la mettre ko en danger vis-à-vis de ses concitoyens mm-hmm. donc nag euh, vraiment lu regrettable la te man ak su may conseil euh, dinañ def li war pour vraiment laver notre honneur mhm. parce que laver votre honneur parce que dafa nekk loo xam ne mhm. euh, franchement fii Sénégal toll euh, lu lu lu récurrent la heureusement que tey amul benn presse locale wala internationale bu sérieuse mhm. bu bu bu diffuser information bi ni mel parce que amul kenn ci Sénégal wala ci àdduna bi ku mën a euh, prouver li parce que c'est extrêmement grave nan la mën a nit mën a denc un milliard de francs CFA. dara dara amu ci dama toog un lundi ñu ne ma la veille dañu cambrioler sa kër jël fa un milliard. cambriolage bi am na wala somme bi moo amul amul ok ok. amul du tout parce que mënu ma toog sama kër le lundi ñu ne ma dimanche cambriolé sa kër. Mhm. bind ko ci presse bi divisé ko partout dans le pays. ah mais qu'est-ce qu'il y a derrière parce que. mais mais li am derrière li am derrière voilà il s'est pas limité seulement non. à depuis boobu on constate qu'il écrit. il Exactement. fait des posts sur vous. voilà donc li li am derrière je pense que sénégalais boo am xel xam ne. am na ay nit ñu nekk ci ginnaaw loolu. yu weesu Adama Adama Gaye non c'est pas du tout Adama Gaye ah. parce que Adama Gaye mu ngi États-Unis mu ngi en tout cas mu ngi. mu ngi beneen dëkk voilà mu ngi mu ngi beneen dëkk. ok je pense pas que ce soit lui le responsable de cette affaire mais ñi responsable effectivement ñu ngi suñu biir et lii ñu def euh, vraiment c'est c'est c'est extrêmement grave et regrettable euh, ay nit di def cette pratique politique. pour rek nuire à une. à une ah, euh, yu mel noonu dañu koy dégg très souvent jëm ci ay hommes politiques ça n'a pas avec vous déjà du temps du président Abdoulaye Wade doon nañu ko dégg euh, ci ay nit yenn saa yi ñu ne Ousmane Ngom yenn saa ñu ne Cheikh Tidiane Sy euh, avec vous aussi on nous parle quelquefois de Farba Ngom yenn saa yi du fils de Aly Ngouille yenn saa yi est-ce que aussi du que les hommes politiques da di peut-être ci benn benn luxe boo xam ne xëy na mooy tax ñu bëri di xalaat loolu wala souvent da ngeen di am yenn denc yu ngeen di ñi di am yenn yenn duddi bi. bon man li ma li may wax rek mooy euh, aujourd'hui nit ki booy bind dara daf la war a daf la war a wóor. Mhm. dafa war a nekk loo xamante ne vraiment information. parce que nit ki mënoo ñëw ni rek yeewu xëy attaqué doomu aadama. sol ko lu la neex bind ko ci internet bi loolu ça devient très facile et ça devient dangereux pour ñun ñëpp. au-delà des, des, hommes politiques. Donc je pense que il faut quand même qu'on ait raison cadée. Malheureusement, ce ne même pas euh, ay personnes lambda ñoom ñoo koy def mais ñun entre ñun homme politique yi voilà foofu laa doon ñun ñoo koy véhiculer ñun ñoo koy ñun ñoo koy véhiculer pour déstabiliser adversaire politique pour juste euh, combattre nit mhm. dans ton propre camp jël benn information sa maison a été incendiée déformé ko yokk ay affaire def lu nekk juste pour salir la personne loolu mooy les nouvelles pratiques yi nga xamante ne moom la ñu noté dans le cadre de la politique et c'est et c'est extrêmement euh, regrettable. vous avez porté l'affaire en justice wala yaa ngi koy waaj. bien sûr bien sûr avec avec mes conseils mais mais mais rawatina ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk ci. ci nguur gi mu am ci ñun ñi ñi ñuy def pratique yu mel ni